aouzu billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah di yónnee sunu njaal sunu mbokk yi nga xam ni sunu doom yéeg suñu mbokk yi nga xam ni ca mbuur ñu wax waa mbuur ni ko ñu ngi bokk ak ñoom naqar bi ñi fi des yàlla na leen yàlla may xolu muñ te yàlla na fi lii gëj suñ fa jógee ñu xar bi te di leen di ñaan yàlla bu mu fi amati te li ñaan gouvernement bi li ministre bi wax ni nawet bi du sunu nawet te nit ngi di ko xool waaye ma leen di ñaan bu déwénee ñu jël disposition ba lu mel nii du amati ña fa ñàkk seen bakkan yàlla na leen yàlla yërëm jéggi jëne yi gën a kawe ña fa des yàlla na leen yàlla may gudd fanta may leen wér ñu yàqule yàlla leen yàlla taxawu waaye nag du nu mën bañ a gërëm la xalif ci geste bi mu def te yàgg na li ñuy waay dajale tey mooy dañu ñëw pour dooleel sunu président soutenir ak ni peuple bi ci campagne bi jaay leen benn programme ñu adopté ko yóbbu nu si loo xam ni pour la première fois au au premier tour un opposant gagné les élections présidentielles les élections présidentielles projet de loi bi yoo xam ni moo koy permettre mu liggéey def li askan bi bëgg mu am ngor gu toll na xam ni amul matière yàkkamti mënta ñàkk nag te yàkkamti mu ne ay ca ma ñii ba xam ñu commencé ci débat d'orientation budgétaire yi ñu ginnaaw loolu gouvernement bi nga xam ne dafa indi yaakaar ci réew mi réew mi yëpp samp yaakaaram ci gouvernement bi ñu ni day censure ko bëgg daaneel te waxuñu peuple bi lu tax ñu ni déet président génn def projet de loi dugal ko déclaration de politique générale bi mu am balay le douze lu tax parce que rek nit nee na balay le douze di ngeen tal leneen ba transgresser les lois qui demandent huit jours de délai aux députés pour ñu def DPG ñu sant nag président ci bravoure am ba mu jotee ba ko Sénégal yëpp bëggee mu dissout as législature bii député ñëw mer ba gàddu kees ga nit ñet di wax nag nit ñi lu ñu ngi koy wax mais parce que conséquence la gis du ñu gis cause bi lan moo indi ba député que Amadou Mame Diop bi ñu fi teg il n'était là qu'un figurant que Macky Sall était à la fois le président de la République et le président de l'Assemblée nationale donc Bassirou Diomaye fay ñu ngi lay sant Maggi Pastef di la gërëm di la soutenir te di la jàppale buñ ca jógee premier ministre bii nekk paravent ci président de la république lu ne ñu koy yekk mais billaay Diomaye moo gore yow ka nga xam ni 12 ans ngay xeex pour def ko président ñuy xeex ñii di xeex da di ko bëgg ca fa muy daanoo ci njàmbaar mu joxoñ li ñu def leen ci président ñu def la président nga koy déglu di waxtaan ak moom di diisoo ak moom ba mu mel na moo lay wax ngay def Diomaye moo gore waaye jërëjëf Ousmane Sonko magi Pastef rek di la ñaan fi nga teg sa tànk foofu la bu ko tegg benn yoon jàppale sa rakk ñu àndoo bokk leen jàppale ñu defar Sénégal waaye loolu yëpp bi mu amee balaa ñu koy disul ba ñuy yegg foofu dan fa am ay député Ayib Daffé jiite leen balay Ayib Daffé Birame Souleye moo leen jiite mais Ayib Daffé jiite leen ak fulla ak fayda ñu leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di wax di gàtt ngalaama ñoom léegi nag ba ñu dissoudre assemblée nationale ñuy wax ak askan bi usman Sonko la ñëpp defoon ci xol yi yaakaar ni moom mooy nekk président candidature bu joxoon jomaay ñu fal ko ñu jox leen programme ngeen nangu ko mais bu ñu amul majorité les quatre vingt cinq projet de loi yi nga xam ne mooy autoroute bi nga xam ni fa yu mën a jaar pour defar di nelaw ci jàmm am sécurité am lépp lu mat quatre vingt projet de loi ñu ngi toog di xaar ñu bëgg yéen askan bi ngeen may président lu mu leen di donc nañu farlu te taxawu takku ci gannaaw Ousmane Sonko suñu objectif nag mooy am le maximum de député possible ñi ñaa ngi naan sax que cent quarante léegi nag occasion la pour ñu remercier waa Maggi Pastef seen njàmbaarte seen taxawu ci xale maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp te di wax ni nag jeexagul te incha du jeex nañ ci def suñu kéemtalaay kàttan ba fa xale yi bëgg. fu ñu leen woowee ngeen jóg fu ñu leen woowee ngeen ñëw c'est le message qu'on voulait faire passer en wolof ñu ngi leen di sant yéen ñëpp. Euh, bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu ñu fi nekk ñëpp di ci beral nag waa presse bi sunu mbokk yi nga xam may nuyu nag ñi fi ne ñëpp mais di ci jiital nag le président de la république le président Bassirou Diomaye Diakhar fay di ci teg son vaillant premier ministre euh, jóge ñëpp di exhorter nag famille yi ñu góor góorgóorlu bu baax ci xale yi exor ndax ñun fa dëkkoon ñun ñi fa dëkkoon ay prêt yu gaaw a gaaw gaaw nga ñëw firime Dakar ñu naan foofu la yëf ya ne mais foofa neexatul de nañu yedd famille yi gere ko yàlla mën nañu dool defal sutura may sensibiliser famille yëpp ñu gën a encourager sunu doom yi xam ne li génn ci réew mi te ñun sunu slogan mooy li ñëpp bokk li fi am ñëpp nañ ko bokk topp géej gi te wax dëgg yàlla njariñ loo fekke nag ku bëgg a teral sa yaay boo deewee toog ko teral kon nañu toog fii jéem ci li fi ne loolu laa ne woon dinaa ko ci wax ci li xew mbuur di wax na yi ñu bëgg yëpp dinañ ko def ngi ñu ngi félicité le vaillant peuple sénégalais ndax peuple sénégalais li ñu am nii tey bu dul woon xam ne le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay lu mu diggee woon rek def na ko ndax dafa ne woon du ñu def gouvernement plutôt mais ñun cinq la ñu am ak profil yoo xam ne nag kenn am.